naafila fukelu guddi ak ñaar ci wéru koor fukki rakaxa lay doon rakaxa bu ci nek da ngay jang fatihatul kitab ben yoon jang suratul ikhlas juróom ben yoon ma wat ko fukki rakaxa lay doon doon juróomi sëlmal rakaxa bu ci nek da ngay jang fatihatul kitab ben yoon jang suratul ikhlas juróom ben yoon selmal ñaan yalla yalla na yalla nangul suñu koor jox leen rendez-vous ci fukkeelu guddi ga ak ñett ci weeru koor wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu